di wax ne que korité bi korité nañ ko ci jàmm ak salaam di ñaanal ñëpp jàmm waaye may wax sama flowos yëpp maa ngi leen di jéggalu ci partage bi nga xamante ne laa leen di partage sama ay vidéo ngeen di ko seetaan te joxuma leen connexion maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax waaye maa ngi leen di baalu ak tamit bu baax a baax a baax a baax nee naa la bu jugee foofu nag dama leen di wax ne que employé yi nga xamante ne dañoo demoon korité ji ñibbisiwaat leen ngeen liggéey korité gi jeex na Sénégal bëgg ngeen feet te yoru leen duuli mbaam yoru leen àndu leen ak ma yoro dara yoru leen ko bëgg feet ku ci tàggoo dem korite ji balaa ngaa ñëwaat liggéey jël sa poste danga fay toogo toogo toog ay une semaine ak deux semaines pour lan loolu yàqati mu laana du ñëw liggéey si ñëw leen liggéey si nag feet bi jeex na waaye nga bëgg a korite ji toog fa deux semaine nit ku toog di la xaar liggéeyu leen bëgg ngeen xaalis te nanguwu leen a liggéey bàyyi leen bëgg feet bu bëri Sénégal bëgg ngeen feet te amu leen xaalis bàyyi leen bëgg feet gi korité bi démb la woon nit ñi korité nañ ci jàmm reposé ngeen tey bu subaa ci nekk nanga nga gàddu sa saaj te dem liggéeyi gouvernement bu bees bi liggéey la woote amatul muy dox gaaw dem liggéeyi amatul toog muy dox de liggéey la woote ba ngeen demee korité ji ba tey lu leen tee jug dem liggéeyi ku nekk na nga gëm sa bopp nag gëm sa bopp ci jaamu yàlla la bokk te dem liggéey jaamu yàlla mooy liggéey ku ci yaakaar ne yor woon kurus xale bu tuuti yor kurus di kocc koccal liggéeyoo defoo dara téyeb kurus naan da ngay kocc koccal yow doob sëriñ doo dara nga am sa doole ju ne muut lu la tee dem liggéey nga yorab kurus di kocc koccal jëmale ilaa yow mi diini du ngeen liggéey bëgg ngeen xaas te nanguwu leen a liggéey dem leen liggéeyi yéen sëriñ su ndaw si nekk ci télé yeeg rajo yeeg média yi wuti leen lu ngeen def jaayi leen wala ngeen jëndi te bàyyi nit ñi ngeen di nax am na ñoo xam ne xamuñu dara toog di lekk xaalisab jàmbur rek mënu leen dara toog di lekk xaalisab jàmbur dem leen liggéey gouvernement gouvernement bu bees bi liggéey la woote nee na toog muy dox amatul toog fa toog di def sa muy dox amatul liggéey ku nekk yàlla dalaa jox doole jooy liggéeyee jox la xel ngay xalaat say cër benn manqué wu ci waaye yaa mu laa naan lotee dem liggéey nag dem leen liggéey te bàyyi seen caaxaan yi ngeen nekkee joomaay liggéey la woote la ma sa isa jëy fatim penda ak maa ñaan Viviane gisaguma lu bees loo génnee de mbaa lu neex nam naa say woy di ko calan challenge gisaguma la nag foo nekk ah yaag Maria may sa bige Maria Sin maar Maria may sa bige nag gis nañ ko mu dëri valise xaw ma France lay dem xaw ma fu muy dem diri na valise daal ah nee naal di dem moom fu mu nekk moom ci liggéeyam la nekk sama ñaari woykat yooyu nga xamante ne kenn demul ñu des ñoom liggéey rek la ñu def Sénégal liggéey la woote waaye ñoom liggéey rek la ñuy def yéen ñi nga xamante ne nag yéen a ami bor ci korite gi lépp ay ginaaru jàmbur wala ngeen lépp ci siwu jàmbur wala tailleur ñawal leen fayu leen ko sénégalais noonu la mënee lépp te du fay boo koy fayeeku mu mer di xuloog yow ak di rendeeku yéen ñi lépp cheveux jàmbur yi tisi jàmbur yi ak ñaw yi jàmbur yi ñi leen ñawal ba pare fayegu leen leen dem leen ngeen fay leen korite gi jeex na ku ci lépp nit demal nga fay ko bor fay la tudd waaye leba leba leb ay ginaar nga leb tisi nga leb lu nekk nga leb te booy leb dangay neexal nit ka ba mu lebal la doo ko fay bu yow mal fay jotee ngay xuloog moom fan ngeen ko teg bor fay la tudd ku ci nekk boutique ba nga ameel am na ñoo xam ne bu ñuy dem dañuy wiiraanu du fa ñu leb duñ fa jaar fan ngeen ko teg sénégalais ñeme ngeen leb te ñeme wuleen a fay bor bon ngeen ñaan iñaan iñañati bi ngeen wooree ku ci nekk yaa ngi doon ñaan yàlla lu baax naan waa yàlla yàlla nag ma defal lu baax maa ngi lay ñaanal jàmm ak salaam loolu na ngeen ci sax te dakk ci bàyyi leen koor ñëw ak korite ngeen daadi di nit ñi ba pare baalu leen ak ci kori gi ba pare delluwaat di leen tooñal tooñaat loolu tam du duñu topp korite gi jeex na loolu day jeex bu fi kenn tooñaat kenn dëggal jubal leeral liggéey koo ameel fay ko fay leen bor korite gi jeex na nee naa la bu ma jógee foofu damay ñëw ci kan Amina saan dama ko gis muy def interview di jooy problème yaa ngay démarré nag ndekete l'apparence su nit daal day naxaate quoi Amina bu famille sénégalaise moom moo nekkoon ci famille sénégalaise nekk xaritu soxna Batoor ñu doon teg seeni dil ak yooyu ndek daal dil yamu doon teg noonu ndeysaan dama ko yërëm nag parce que dafa wax ba jooy pax ndax ku góor ki da weer Sénégal yenn saa ngay gis nit ci télé bi muy ree di happy di béggee di enjoy problème kese la ku nekk na nga gëm sa bopp xam ne gis nga kii ngay xool di ko ñee kii ngay xool teg ko bët kii ngay xool bëgg mu doon sa référence xam nga référence bu baax lu koy maye am fulaak faydaak personnalité kii ngay xool teg ko bët kii ngay xool bëgg mu doon sa référence xam nga référence bu baax lu koy maye am fulaak faydaak personnalité ak dignité ak liggéey am na ñoo xam ne yaa ngi leen di jox ay valeur sax di leen jox personnalité ak dignité waaye amuñu ko parce que xam nga lu tax fa leen foog nekkuñu fa fa nga leen teg nekkuñu fa ñu ngi ci yeneen léegi nag bu mbir amee da ngay gis ñu naan waa diw moom dëkke noonu la meloon mais diw moomu nit la comme yow de nit la rek comme yow day lekk di naan di def lépp problème nag day am ci ku nekk ñu ngi koy ñaanal nag problème bi yàlla teggil ko ko ci jàmm ak salaam waaye bu ca jógee rek mu daal di koy bañ a dalaat ndax nee naa la Sénégal gii ñu nekk kenn baaxul kenn bëggul kenn ku nekk sa bopp nga bëgg bëggante leen jàppante déggal jubal leeral yàlla àndul ak ay naq saxandang yooyu de déedéet yàlla looy def ci àddina di ko ko nëb da koy feeñal munta nëbbu sama vidéo xoola beere fag yaa xëy timulaanaa waru ko woon a am sama yére korité laa leen di présenté nee naa la xoola man à moment fu ma neex lay génne a doy na waat bu nekk ak la cay xew man nag dama xam ne nii ah yaa xay tubulaanaa comme bokkuma ak yéen sénégalais yi ma daal di ñëw sama garaamu bu eh, naar rek di leen wax ne baal leen ma àq baal naa leen yal ñu yàlla boole baal ñu fekkee ko déwén yu bari képp ku ma tooñoon baalu ma bu ma tooñaat yooyu laay bañ tooñ ma baalu ma àq ba pare di ma tooñaat dimbali leen ma ngir yàlla bu ma kenn tooñaat man nag aw ma kenn problème ndax man sama liggéeyukaay sama kër bañ naa ko ba fii laay defee sama vidéo bi ci sama liggéeyukaay aw ma jotu kenn ma jotu kenn liggéey tarabaxaa time is morning walk in walk rek ñibbi laa woote waaw sama grand mbubb bi nag ah sama xaritu naar yi nga xamante ne ñoom dama leen di liggéey loo ñoo ma jëndal grand mbubb bi <laughs> ñoom laay ñoo ma jëndal grand mbubb bi dama sol sol <laughs> sol short nga bi waa gis nga nee naa la korité bu nekk ak la